aw ci wàllu politique bi tuuti parce que tamit ci la bokk ndax politique moo la yóbbu woon foofu eh, bi nga doon delluwaat ci wàllum politique nga bokk ci beneen parti mbas tey eh, mun parti NPP ñoom ñoo la ñoom ñoo jël sa toogu bi eh, ci wàllum politique est-ce que jàpp nga ne yow ak fi nga bokk GDC seen parti bi taxawaay bi matoon na ba waroon tax yow ngeen teg fa li tax nga ñu war a am yaakaar ci yow ci wàllum politique ci ci ci ci ci ci taxawaay bi laa wax euh, parce que nag xëy na tamit euh, coow li bari woon na NPP mu ngi laa GDC non mënuñ ñoo mënuñ ñoo mënuñ tasuñ fu mu parti bi est-ce que du du du boobu moo tax nga dem ba tey gis ne NPP def lu ñu war tey si taxawaay bu mu waroon a am amuñ ko ba tey Umar Munta wiinaat ci Ñaamina Est. Euh, dama ne sànni carte député su fekkee si fànn boobu la ñuy waxee du mbiri parti pour man. su fekkee sànni député la ñuy waxee du président bi ngay toogal foofu su fekkee wàllu député la ñuy waxee du ne kenn nit wala sa parti kese nga toogal foofu mais askan bi nga toogal foofu am naa yaakaar ne su fekkee tey waa Ñaamene is man doyaloon neen li nga xam ne wala seen bët fees na li nga xam ne man tey loolu laa nekkoon di leen liggéeyal si néegi député yi xëy mm-hmm, mm-hmm. su ma taxawee indépendance sax am naa mm-hmm. yaakaar ne war neen maa mun a sànni seen carte moo tax man tey dama gëm ne su fekkee nga xam ne tey mbiri parti leen ko xoolee NPP fii la GDC fii la UDP fii la tey amul dara li nga xam ne nii tey askan bi suñ gëmee ne nit ki war na leen a mun a toogal joytul leen ñaxtul leen wax leen seen soxla koku war nañ ko mëna a xëy toog. waaye waaye est-ce que ne kon politique feñ na ci ci walu lolu parti feñ na ci parce que yow su fekke da nga japp li nga wara euh, def def nga ko waaye nga am parti bi nga bok di jidi si nga taxaw ci taxaway pour parti bobu am keneen ko taxaway ci benen parti ci touram ñu tan koku melni kon xool nañ parti ah, tamit politique tamit eh, feñ na. Amadou dina la wax lo ci xamut parce que duma ma dee bëgg dugg ci bunte yoy wa mais euh, dafa am solo ñun tay ñu gëna yaatal. li nga xam ne tey moo nekk wàllu politique bi. Mhm. loolu nag du suma liggéey man kese. waaw politicien bi war na wax askan bi nu ñu war a doxalee li leen war ak lan mooy seen cër. mais civil society itam war na leen. Mhm. ñu xamal askan bi yaatalal leen lan mooy seen cër ak lan moo leen am war li nga xam ne mooy réew mi. tey maanaam. Mhm. réew mi surtout li nga xam ne mooy dëkki àll yi. dafa am benn gëm-gëm bu nekkee si moom ñoom te loolu ñun ñëpp war nañu ñu génne ko mooy lan tey den gëm ne askan bi nguur su ko yàlla ta sampe mhm. kooku da ko war a toppa su ko yàlla wàccee nga wàcc mais daaneel nguur wala ñàkkaa toppa nguur loolu tey day nekk wéet yàlla gëm-gëm bi dafa nekk suñu bëri. waaw est-ce que loolu gis ne sax ñi nga xam ne. xaaral non non non est-ce que loolu. xaaral xaaral ma ñëw. gis ne sax ñi nga xam ne. ay borom xam-xam leen ñu joxoon leen place yu mag si biir réew mi mhm. ku si mel ni di former vice president of the Gambia nee na soo weddee Adama Baro dafa mel ni yàlla nga weddi kan la ci vice president ay sa du Touré mhm. di former vice president so lii dafa nekk li nga xam ne dafa dem deep down to the grassroots nekk waxuma ne moom moo yóbbali waaye ñun dafa yàgg si suñ euh, nit yi nga xam ne tey ñoo nekk si provinces non ba den gis nañ ci leen yenn constituency Omar 2017 lu moo fi amoon dem nga ci parti bokulo ak nguur ci coalition bi way win nga kenen win ren gis nañ diversity bu ci am independent ni taxaw nañ win massively so lolu boko mune fan fan nga fan nga ko muna tek li tax nit ñi dégg ko ñu tamit lolu waxi politique ci Omar Gagné wut mu am fu mu wéru tamit ma ñew so xolé tay ci bir ñame na islaawa wa ah, parce que li may wax fofu la koy muna émalé emale dem na be ci 2016 bi nga xam the former president Yahya jàmm dafa daanu élection sax waaye dafa win biir Ñaamena East ma xamal la loolu hmm. ba ma moo nekkoon si siis bi comprendre soo twenty twenty twenty twenty one hmm. président Adama Barrow biir Ñaamena East moom moo gañ foofu ak doole waaye tey soo ñëwee si wàllu député yi sax man mun naay wax ne hmm. li nga xam ne tey man moom laa am foofu noonu si presidential election bi mun naa wax ne GDC as a political party amul ko foofu so li ma nekk di wax rek mooy tey in twenty in twenty xarama ñëw in twenty seventeen tey ñu bari li nga xam ne nii leen jàppoon mooy lii nguuri jàppandal booba xamaguñ fan leen jëm mm. ñaame ne is mun naa wax ne jamono boobu noonu mm-hmm. ñoom xamaguñ tey kan moo nekk mbir mi mm. parce que nguuri jàppandal la woon mm. waaye bañ demee ba gis ne léegi lii NPP la président Adama Barrow la parti la mooy doxal mooy driver te loolu la ñu gëmloo kon ñu xamne ne nak mbir mi yalla ki la samp ki la taaj kon koku leen wara top li mo moo doon so so loolu feeñ na si élection bi feeñ na ci ok yow ya ngi wax waxi ku ñak ndax ben ci liñ doon dégg ci kaddu yi honorable Omar Cissé before election bi rek da nga gëmoon ne ñaamina sa ñaamina la président Adama barok NPP amuñ fa ben ciir buñ mun a ñe togo bi ci sa place lolu yag nañ ko dégg ben ñaareel bi da nga wax fu am solo maa ngi ko doon wax ci ginnaaw tuuti. Mhm. nekk nga ci assemblée bi five years. wax nga ne dañu am problème ci wàllu politics ci wàllu élection te tey am na committees yu nga xam ne ci biir assemblée bi ñoo jiit dañuy doxal wàllu AIC. Mhm. pour xool seen moom mooy muy élection matters léegi tey bu ñëwee ba tey Omar ne ñu wàllu élection dañ ko war a xee seetaat doxalin doxalin bi. te ñu bëri li ñu wax rek mooy National Assembly bii jeexal muy fifth législative bi yéen ñëpp politics ngeen fa nekkee woon onasan benn Omar lépp lu nga xam ne luy jëm ci nguur la te moom mu gis ne lu war a yóbbu réew mi la bu ci Adama Barrow taxee wala ay ñoñam dafay gis ne politics la mu teg ci tànk mu teg ci tànkam onasan tey boo ñu waxee lii ndax nit ñi duñ jàppee ne kii waxi ku ñàkk la ñuy wax euh, Nekul ne waxi ku ñak lay wax lima nekk di wax ni fokk na ne nit ñi yëpp toog fii mhm. ci liñ teg la man dama daan wax ne ñaamina ñaamina honorable omar cissé te te benn tey gom gom boobu noonu moo nekk si man li ko waral mooy ñàkkaa gañ toogu boobu noonu mhm. loolu minu ne benn tey ñaamina is nekul man suma ñaamina is no dafal ndànka tey mun naa wane toogu ma si néegi député yi fine mhm. gañuma National Assembly instant bi fine waaye man li ma mënoon benn tey tey laa ko gën a mun si nan nekkul ne si néegi député tey laa ko waxee fu ma toog di wax nii State House ñu ngi laa xoolaat hmm. su ma toogee si rajo di wax State House suñ ko déglu suñ paree suma audio day dem si ñoom am naa yaakaar ne fépp fi nga xam ne man taxaw naa foofu wala toog naa foofu maa ngi wax rek ñoom den si lay jot kon ñaxtu yi nga xam ne laa nekkee di ñaxtu wala li ma nekkee di wax mu jëm si suma wàllu xalaat si réew mi ni war a demee loolu benn tey maa ngi toogal ñaame na is maa ngi taxawu ñaame na is donte nekkuma représentative loolu moom gom naa ko te benn tey loolu man dinaa si continuer dinaa xam ne su ma goox lay xeexal dinaa xam ne ndaw ñi lay xeexal réew mi lay xeexal donte nekkuma si néegi député yi sax wax politique bi foog nga nangu tamit ci élection bi benn sa parti GDC da ngeen lajje ndax li tax mooy place yiñ gënoon a xam ne doole GDC la muy ñaami na muy jimara tey dañ gis ne yëpp da ngeen ko ñàkk muy yow ak honorable Alaaji Sow on sànn euh, dinaa la wax na la dinaa la wax na la GDC démb démb ngeen doon màggal seen six years on sànn GDC mhm. man pour man mhm. daanawuñ déet Omar ma ñëw wax bi dafa am ko teg la Gambian Siang laa déglu tey ñu ngi dem ñu ngi continuer te man tey leen gën a am doole li ko waral mooy mhm. am na ñi nga xam ne tey ay political parties leen. ay parti leen amee. seen parti yooyu am neen benn député. am nañ ñaari député. waaye GDC tey vote yu nga xam ne loolu la sikyoo si National Assembly élection bi. parti yooyu amuñ ko. waaw ñooñu am nañ représentative ma ñëw ma ñëw. donte am nañ benn am nañ ñaar bañu ma. APRC ah. bi nga APRC bi nga am dafa deflect am na am nañ ñaari ñaari représentative Euh, PDOIS mi nga xam ne tey moom tamit daanaka keroog bi xalifa ne bàyyi na ñu bëri dañ discourage am na ñaari représentative NRP bi nga xam ne demul sax presidential election am na foo tey boo ñu ne yéen da ngeen am positive results naka la ku Gambien si di déggee honorable non dafa des yow déggin bi dama ne waaw politique mbooloo la mhm. carte bu bari la mhm. fii laa nekkee di waxee si fan na boobu laa nekkee di waxee mhm. tey su fekkee nga xam ne loolu general election la woon we are looking at Euh, total votes tey ñun mun naay wax ne ñoo jiitu ñooñu te lu tax ma ne ñun demuñ gannaaw mooy soo ko xoolee ci presidential election bi taat position leen jël hmm. si parliamentary election bi itam soo boolee vote si yëpp taat position leen jël desuñ gannaaw dama nga compte lu ma laa wax ni waxaral rek waaw the most important thing mooy as local election representative la parti bu nekk soxla because benn taag duñ fa bind GDC UDP waaye booy dem sponsor IEC dañuy wax ne political party moo la sponsor wala nga dem independent GDC da ngeen dem sponsor 27 candidate kenn si yéen wiinut ah, loolu failure la non d'accord naa loolu laa wax ma ne candidate ñu taxawal yëpp wiinuñ foofu d'accord waaye dama ne su fekkee si total vote si leen xool GDC comme li ngeen wax ne GDC des na gannaaw daanu na dee na li nit yi di gëmloo yeneen supporters yi loolu laa nekk di daax na la ñun tey fu ñu nekkoon foofu leen nekk su fekkoon ne de loolu la wax. waaw kon sant yàlla. ok <laughs> yes Modou Niang dégg euh, fu fu ñu fi nekk mu ngi jéem a dëgëral na GDC ba léegi ñu ngi fi nekkoon bu dee sax ëpp euh, yokku wuñ xëy nag loolu dafa bëgg a xëy na euh, dalal xel yi ah gars yi GDC ak yooyu ba teen euh, lan ma bàyyi la ak moom rek lan nga ci bëgg a jàngat ak. Hmm. balaa ñëw move on ci leneen waa politicien dafa am lu ñu dee calculer moom mu ngi si nombre of ñu am. foofu la calculer waaye nombre of votes yi taxut amuñ benn représentation national assemblée bi. ñoom euh, politicien bi seen calcul dafa xóot wante tam leena tam euh, am na fu mu waxee comme si provinces bi dafa am benn aada politique bu fa nekk loolu ñu ñëpp si provinces lay jógee dañ koy nangu that's it happen loolu moo xew provinces provinces dundee bëgg a wax ne ñoom duñu agent si nguur this is the problème moo tax ñooy gën a néewle si nguur gos ñoom lu ñu gëm dañ ne nguur gi fi ñëw yàlla moo ko fi indi mm-hmm. soo kooku la ñoo àndat ku ko weddi yàlla nga weddi so concept bobu len am te lolou lañu dundu lolou len baye xel si loolu because ñu la laa won loolu mooy wane ne 2016 euh, mu ngi laa won ne jàmme moo fa wi non ñu ngi wane nguur len andalo waaye nguur gi ñoo xamaguñ fi ñu doon tek seen tanka so lolou tax itam bi ñu fu ñoo tek seen tanka nguur gogu lañu ñoo lolou moy yow depuis Baba Jawara waaye est-ce que dynamics yi tamit nekkul di ceeb somehow parce que so demee fi nga wax melni ni comme ñaani fi ma joggé lolou mo lolou lañ doon campagne sax ren waaye nit ñi dañ won né ñu né ñaani bañ na jàpp ne ne lu a am am na xëy na ñaami na tamit uute na ak feneen no xam nga ñaani luñ bañ si si parlementaire yi bon ñaani bañu si présidentielle non waxuma la si parlementaire bi laay wax boobu foofu lañ àndul foofu lañ waaye foofu honorable tey su fekkoon ne honorable su fekkoon ne am nga foofu lii problème bi non wait one of the willis UDP eh, naka PDOIS moo ko wiit may leen ma rek ara moo la rek parlementaire bi soay bu dellu NPP non sorry ma, NPP moo fa tegul ku waa ñaani soxla moo tax ñu bañ waaw ñaani bañ indi kuñ indi kuñ soxla ñoom so that's it LBP moo fa tegul ku ñaani soxla ñaani na kuñ soxla ñu teg ko fa na ñaani bañ na parce que ñoom moomuñ ñaani ñaani ñooy seet kuñ bugga a ñu tànn teg ko fa so loolu la bëgg bu nga amee ne soo sori yee waaye loolu du forcé du nekkul force pour ñaani ñi pour ñu ko sori ah, sori may ma may ma daanale gu ma du foos ñaani eh, ñaami na dafa am ñami is amul bay election amu fa eh, UDP kii nekk ñi ñàkk ko waaw ah, gars yi ñàkk ko so bi tam the same thing because li problème bi moy man xamna politique bu nekk ñami na ay non politique bi ci souf xamna ko lan mu ban politique very serious politique mo fa nekk ah, xamna ko de ah, bu ko man dem na fa bay ko ko bay ko ko déglu ma bu ko nak ma laaj daanale bu dama bëgg mu comment foofu nga continuer ok dama ko bëgg a yokkal foofu gis nga Euh, politique bi dafa am ni mu ni nga xam ne tey si biir na wala man ma nekk ndaw dafa am tey li nga xam ne la ma nguur nekk di xoolee waxuma ne maa gën a liggéey biir Gambia si député yi waxuma loolu. Hmm. waxuma ne itam maa gën a xareñ wala maa gën a am fit si député yi déedéet waxuma loolu waaye tey nguur gi. Hmm. muy nguuri président Adama Barrow seen taxawaay si honorable Omar Cissé bëggatuñ ko gis sax si politique. lii mooy seen taxawaay ñoo gis honorable Omar sisi ekati ekkati so baye hel depuis xex bi depuis mu commencé moy ba nga xamé ne ñamina is amone mid people store moy president bi dem fa ma garal fa ay kàddu kàddu yoy depuis mu am ben tay si la gaay commencé bi né ki lenn moy mëna am ben mu join NPP wala ñu éliminer ko ci euh, politique bi te lu ñu jaral rek lu ko jaral rek jaral nañu jaral nañu lu ko upp te gom-gom boobu mo nekkon ci mom te xam ne ñu ngi askan bi yu bari xale bi amul yar xale bi bu ngeen ko sànnilee resté gun mag xale bi bu ngeen ko sànnilee dafa wax dëgg xale bi moo leen dee xëy seen développement yi xale bi moo leen dee mm, bañal lu bari si néegi député yi li nga xam ne ni den leen ko dee bëgg a indil lii yëpp den ko gëmloo askan bi xam nga tey niti provinces bi lu nguur wax loolu ñoo foog ne ne mbir mi foofu rek mais yu bari da ngay taxaw ngir leeral ko leeral naa ko si télé leeral naa si rajo yu bari yu mel nii mais tey dañoo jàpp ne opposition bi moom li muy wax nii waxi politique la rek waxi opposition la du yàgg ba mun ñaa indi dara te tey si biir ñaami ne is mun naa laa wax lu bëri li nga xam ne def neen ko foofu nguur amul dara li nga xam ne tey dugal na ko foofu mais xaar neen ba élection jot two hundred dollars three hundred dollars ay doom yu jumboo gis naa sax ñu sànne carte si ñaari doom yu jumboo gis naa ñu sànnee kàddu si juróomi doomi jubóo non loolu est-ce que loolu non loolu non dafa nag dama la expliqué rek non dama la expliqué loolu loolu tuumal bu garaaw la da nga bëgg a wax ne ñu jëndee sa waa sa waa gox ay jimbo ay loolu wax ko tamit dama ne bul ñàkk ba pare nga bëgg a tuumal gars yi nekkuma di put tamit gars yi la seetaan allégation mooy wax li nga xam ne leerul la man nekkuma di teg allégation waaye boo waxee ne wax non nekkuma di teg allégation dama laay wax li nga xam ne moo xew ay jimbo tamit bu ñaami dama ne la jimbo sax am na ñu nga xam ne dañ ko sànnee karta dégguma de tey soo demee si dëkk lu xew mooy da ngay dem si dëkk boo xam ne tey thousand bourse ñoo fa nekk lu ëpp a thousand jigéen ñoo fa nekk for instance nga may leen two two two thousand dollars wala ngeen dem jëndee ko jumboog ñooy ñëw gars yi séddalee ko sa kanam mooy loolu nga amal gars yi kay man nag loolu taxul maay dox dama ne su fekkee nga xam ne tey dañoo oo nit yi si dëggal leen leen oo si li nga xam ne daf la naa jëriñ ëllëg si hôpital bi mu ngi nii a garab suñu yoon yi ñu ngi noonu baaxul suñu euh, lifin bi schools si ñu ngi noonu toogu sax mënuñ ko am. ak yeneen mbir yu nga xam ne ni tey mu ngi xew. bàyyi Mor Niang mu jeexal ba pare ma ñëw kon dafa mel ni. honneur bu mu yow li nga doon wax ne problème bu xam nga politique ñun gis nañ ay kaleere waaw loolu moom mooy kii moom dafa dafa gën a wàccee baa bi mu ne jimbo last night ko kaleere yi ewoon lu mooy yëpp la si réew mi fii ni ñu ko dee politique yi dafa tilim bon lu mu wax mooy ne dafa am cosaani politique bu ew Saalum ba léegi génnut fa. yi hmm. Saalum yi loolu leen góom gox société diine bi moo tax kii yàlla fal kooku ngay kooku rek nga fay bàyyi kooku moo faa nekk nangam nangam te nag suñu demee si beneen côté bi ñu bañ ko waaye mun ngaa wax ne ku si ne nit ñi ñoo dem wàññi wàcc sànni karta ànd ak dogal yàlla bi mu am so concept boobu la niti Saalum góom kon foofu foog ñu nangul ko ne ku fa xàccoo nguur mun mun ngaa ñàkk. waaye lu tax tam. ñu gën mun ngaa win tam tam. Omar foofu foog tam moom itam mu absent ne gars yi ñaame ni ñoo décidé pour génnee ko fa loolu la waaye Omar tam ku ne ñun de ku ne xam na ne taxawaayam si biir National Assembly bi defe na lii ñaawul fa. waaw bokk na ci na fa ñu bëri. te sax ñun bu ñu doon analyse fii. ñun expect gën a bëggaat ñu ñëwaat si National Assembly moom bokk na si parce que den bëgg a changes lii problème bi mooy ne Omar bokk na si ñi nga xam ne waroon na mun a indi changes si National Assembly ak si réew mi bu ko dañ soxla ndaw ñi ndaw ñi dafa jot pour ñu dem fu ñu nas ak fu ñu noccee waaye du yow yaa mun a nominate wala keneen moo mun a nominate population bi ñooy decide mhm. ñaami ne is decide pour def fa keneen bon loolu nag taxut Omar moom mu war a bàyyi loxoom pour continuer war a liggéey si réew mi taxawaay bu mu fi amoon si beneen boor National Assembly du liggéey réew mi beneen boor mu ngi fa parce que askan bi ak ndawi réew mi dañ am yaakaar si moom exemple la si daf ko wane si fay léegi am na solo léegi pour jeexal foofu rek balaa ñoo move on because bëgg nañu wax ci cabinet bi bëgg nañu wax tolluwaay réew mi just quickly rek GDC as a party maam mu ngi ko wax dem ngeen élection présidentielle gis nga lu fi xew National Assembly gis nga amoon ngeen five ngeen mujj amatu amatu leen dara ci penc léegi la est-ce que jàppaloo ne li ñu yàgg a wax GDC bu <laughs> fekkee ne yéen tasu leen sax tas boobu ngeen jéem parce que tamit parti Omar da ngay nangu ne tamit dafa am ay réalités yu am ah Adama ah, ñëw foofu jëróon nga sëri sa si laajte bi léegi li may wax mooy ah, neen xool taarixa Gambia si gannaaw tuuti bugguma cee sëri tey li nga nekk di góomloo askan bi yow ñu lay xoolaat mooy GDC amuñ benn par amuñ benn député kon daa mel ni parti mu ngi dee wala jëm na si wàllu dee. ay firnde ay firnde firnde bi mooy da ngeen dem da ngeen amul demoon Ñaamina West non Ñaamina West da ngeen fa dem ngeen ñàkk dem jookaadu ngeen ñàkk ko dem présidentiel ngeen ñàkk ko dem parlementaire ngeen ñàkk seen siit si yëpp ngeen bugg a gomloo si yéen a fi nekk seen doole banque fa wala mu ngay yokk loolu naka la ko nit mën a dégg Amadou xaaral ma ñëw ah, Amadou xaaral waaw ñu bëri tey nekk fale lu ñu nekk di gëmloo suñu supporters wala lu ñu nekk di gëmloo askan wi mooy GDC dee na wala si wàllu dee la jëm ngir lan amuñ benn député waaye dama laa waxal ne tey suñu xoolee yeneen political parties yu nga xam ne ñu ngi fi woon 20 years back 30 years back political parties yooyu noonu yëpp ñu si bari nekk neen fi fukki at nekk neen fi ñaar fukki at councilor sax mosuñ koy am benn councilor mooy ban parti ñu ngi mooy ban parti for example opposition parties G GPDP GMC you talk of UDP no, GPDP. you harma no dama la wax no I'm telling you now the biggest political party almost I'm, I'm now telling you why, why party, the party that is considered uh, almost the, the, the biggest opposition political party what orders might consider in 20 years back 30 years back jamono daf dee am élection daf dee am duñ taxaw sa élection two hours waaw noo xar ma ñëw dañ dee taxaw tam am na jamono yu nga xam ne dañ dee taxaw tam benn toogu duñ ko am am na jamono buñ taxaw benn kansuloo leen am 2016 ba président Yaya Jammeh di daanu benn opposition député moo nekkoon si néegi député yi mooy Samba Diallo NRP. Mhm. lu si des yëpp APRC la woon wa legui dafa melni ni GDC tey history bobu non la nek di jaar lolu miru ne parti bi daru na tay ana UDP ñu koy waxanto NRP jamono daf laa ñëw wul ne sa tour bi sax nit ñi xamuñ ko won boobu ana ñu tay ñi ngi wax ñeenti député bi juróomi député ana tey PDOIS député mom ñu ne li de daan ana sax so ay yeneen parti PPP kene leen gëj am député soo lii yëpp dafay xew si taarix Gambia kon dafa mel ni GDC itam si history boobu la nekk di jaar waaye GDC moom wax la ne dafa am achievement bi nga xam ne parti yi yëpp tuddal la mosuñ koy am waaw parti boo xam ne dañ ko ubbi si biir ñetti weer amul député amul councilor amul chairman amul mayor amul dara ñu mu dem presidential election mu def achievement bi nga xam ne ni kenn yaakaaru ko woon si parti bi te mun naa laa wax sax changes bu ñuy enjoy tey ñoo ko indi ñaare bi mooy maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu dem National Assembly election jiiri si indi juróomi député si taarixa Gambia mostu am opposition political party boo xam ne den la ubbi si biir ñetti weer ñeenti weer juróomi weer nga dem taxaw député nga am juróomi député mostu am si taarixa Gambia mais amuñ foofu soo demee si councilor bi mu ñëw ñu am 25 councilor nga ñëw ci chairman bi ñu am benn chairman mosto xew si taarix Gambia. waaw du moo bëri rek. est-ce que du loolu moo na la. non est-ce que waat loolu moo leen nax nag léegi. ngeen jiyee jàpp ne def ngeen fi da du am solo. non ngeen dem affaire bi. non bàyyandeku wuñ xaaral ngeen dem ngeen di daanu daanu daanu. léegi nekkul Afrique ñu ko foofu rek. jiri si baax mais ma continuer. acca GDC tey boo ko xoolee benn tey nekkul ne day ñàkk everything at all. lan moo ci def tey fu mu nekk nii twenty councilors. secrétaire xaaral ma ñëw loolu moo ci def de Kande moom mu fa ak ak cross carpet bi lu mu bari bari bari bari. benn tey ñu ngi desee twenty councilors yi nga xam ne ci turu GDC la ñuy uyoo twenty déggoo ma tey soo demee Janjanbureh area council ki nga xam ne moo ñu fa nekkal ki nga xam ne moo ñu fa nekkal mooy nekk ak ci am andi foofu kon benn tey am na parti yu nga xam ne moo leen jiite te opposition leen. ok am na parti yu nga xam ne ñu ngi fii di existe benn councilor sax amoon ko jiite si mu nga am twenty councilor. léegi léegi léegi Amadou man. waaw finally rek balaa ñëw moo ko waaw ñëw si loolu. eight months before 2016 election ngeen ubbi mais on a sànga ngeen ñëw bokk ci parti bu nga xam ne ñëpp dañ accept ne GDC dañ bokk ci decision change presidential election 2016. Mm-hmm. because mun nañoo wax ne. 75 percent ñi nekkoon GDC yëpp APRC lañ jógee sànni luñ euh, jàmme mana sàng waaye ànduñu woon ak coalition bi ngeen bokk si ñi waral ceeñ ñi jógee fa ñu ñëw ci local euh, naka national assembly election wax nga ko ngeen am five national assembly representative musta am ci history Gambia parti bu ees bu juddu am representative bu mel noonu waaye jamono dafa ciiñ adduna bi léegi ñu ngi ci ban century léegi. yow jeexal nga wax bi. waaw léegi waaw déglu ma ñëw xanaa waaw ci question boobu laay ñëw déglu rek. non da nga ñu jox taarix da ñu jox taarix. xam nga lu tax may la jamono dafa ceeb lu xewoon xew na. xam naa laajte bi. lu xewoon xew na. ci si amoon na li war a am. jamono ceeb. tey GDC ñàkkoon lu mu war a ñàkk. jamono day ñëwaat GDC state house la jëm. waxuma foofu dañuy toog non dama la wax rek jamono bi nga war a day ceeñ. tam day ceeñ. GDC déglu ma daaneel la jamono day ceeñ li ma la wax mooy ne. da nga fi taxaw nga ne. doy démb APRC naka P euh, GD UDP démb. on a GPDP ma ne. loola jógee nañ ci 2016. 2016 la Gambian si decide ne ñun ñoo bëgg moom suñ bopp. ci ne buñ bëggee Omar Cissé mu toogal ñi moo ñuy toogal buñ bëggee GDC mu toog fi moo fiy toog as a Gambia on léegi man fu may daaneele rek mooy lenn moo am te GDC foog bu ñu ñëwee ci di drawing board wax nga ko démb ngeen doon celebrate seen six years onosaan nga yow as the PRO booy ñëw ci gëm loo nit ñi ba tey ne GDC doole bi mu amoon am na ko because of scoring of numbers of votes yi ngeen score ci local election bi waaye tey representative bi dafa am solo Omar Cissé bi nga xam ne every genuine Gambian daf doon bëgg déglu Omar mu taxaw ci National Assembly bi mu addu ci kaddu yu Gambian si déglu ko mu leeraloon GDC ne Omar Cissé Sow NPP dañ leen bëgg a génnee seen place waaye GDC jëlu leen woon seen matuwaay taxaw ne bëgg ngeen a continuer ñii ñi des seen place. bi ko saf taxawaay bi. loolu itam foog ngeen nangu ko. ok léegi balaa ngay tontu ma bo finally rek dafa mel ni loolu nga boole ko as nga nangu nga kon as the spokesperson of the GDC problème am na seen parti bi jot na pour ngeen toogaat defaraat yëf yi moving forward finally rek on that balaa ñoo move on to something. dama ne fii tey parti bu nekk am na problème. dirige yi soo ne am na problème bañu ma loolu ndaxte politique moom every day ak problème ñoo dee ànd problème yi nga war a régler si biir loolu d'accord mais li ma nekk di wax mooy tey kii lu mu nekk di wax GDC jamono ceeñ na jamono ñëw na soppeeku am na nit ñi defaat ne nii loolu yëpp d'accord jamono moo egga foofu noonu waaye am naa yaakaar ne deneen dem ba jamono nit ñi seen xel dana dellusiwaat si GDC loolu am naa si yaakaar te li si war a gën a xam mooy tey su su fekkee yow yaa ngi wax ne GDC euh, li nga xam ne leen am si élection bi am nañ dix number of loolu man suma gum gëm la benn tey té ku dégg fu may waxé da ngay nangul lima nekké di wax ni parce que soko sété man su féké daanu té amna lañuy wax sax NPP la dañu wone dafa daanu. dafa lajjee ya. UDP mën nañu wone dafa daanu. no noo rek. Mhm. si calculer son wa nangul na la lool NPP forty député la taxawal. waaw ñaata député la am. ci si incumbent. daanu la comparing that moom li mu am ci présidential élection daanu té la. UDP. tey li nga xam ne tey moom la amoon si présidential election bi ak MPs yu nga xam ne leen amoon compared to now daanu tele ñu ngi amoon ñoom around léegi ban parti moo daanu 15 waaye xam nga tey GDC la ñuy waxtaanee man d'accord naa ne benn mbir am na yéen si benn bunt rek ngeen ko xoolee mooy GDC amuñ ku leen toogal si néegi député yi dama ne non foofu rek non xaaral foofu rek ngeen nekk di su ko mooyee non foofu xaaral xaaral dafa leer nekku ni ñoo ko wax da nga ko fekkee honorable yaa di spokesperson from the by elections in Nyamina West fofu la dooree te bala bobu dañ ko don wax seen yaa dem NPP ya ngi ngee jël ngene len leen amul docteur Sabali dem MP mu ne mom lool amul impact ñoñu ay xam nga rek ak ñeneen ak ñeneen jaruma ci tuddu su ay election daf fi jaar ay realities am fi ngeen nekkoon nekkon seen loxo ngeen ñaka ko lool mo am da ngeen la mo tax bay len hel lool ci parti bi yéen a xam bot problem dama jàpp ne da ngeen comme na problem amna is it not time pour ngeen jot tok reflect ah, ci lolu bëgguma sax ñu taxaw ci lolu bu baax because time bi duñ ñuko may waye su du lolu na do repeat ma wax la li tax ni japp ne GDC parce bu nekk mo ci lolu di régler ay problème GDC itam mu ci lolu so how ndax <laughs> nah. léegi fay léegi mam gara garaawul partis yëpp <laughs> political parties yëpp lolu open secret la seen daanute open secret la so tay NBP bi nga xamne len nekk di wax ne ñoo nekk ci nguur tay election yi nga xamne lañuy la ñëw muy maire bi chairman bi dafa am problème muy war a fixé. problème bu rëy bu ñu war a fixé itam te yeneen parti yëpp dañ am pour fixé problème dañu war a move on ci li ma gëm mooy tey fu mu nekk nii. opposition political parties yëpp opposition naa ne benn mbir moo war a nekk suñu éman objectif. Mhm, mooy lan tey ñun gis ne réew mi nu mu nekk di doxee. Mhm. si wàllu député yi la si wàllu councilor yi ak yeneen ak yeneen kon dafa jot pour man. tay election yu nga xamne len wara ñew a ñëw bi jëm ci présidentielle election bu wara a opposition bi xol naka len wara a liggé a parce que suñu éné tay moy ñu gënë fi nga xamne mo fi tok ñu ànd a doon benn seet ñu ñuy liggéey suñu réew wu len ko té lolu amna yaakar né opposition bi di len ci taxaw wu len ko kon lolu yëp ben tay si biir fixe bi nga nekkee di wax ci la bokk kenn ko nekk na régler sa internal problème why from there dañen xol tam naka len mëna a tu gayda ñu waxtaan ñu seet li nga xam ne ne loolu leen mën a saafaraale dëkk bi waxuma sa political party waaye dëkk bi